ana ñi xam-xam yu teel ana ñi bëgg xam seen diine tàbbil ci ngëneel li di mawaaxibul xuddus doon téere bu Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul taalif mawaaxibul ko ànd ak Serigne Modou Lo kon bu leen ko kenn nettali fii ci ASG production le reflet du mouridisme le reflet du mouridisme bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki julli mbokk taalibe bi ci kaddu gi Sëriñ Modu Laasiru ñu di siyaare ñu dellu si waat ci seen seen YouTube bi ñu tuddee ASC production ci téere bii sëriñ bi tuddee Mawaahibul Xuddus fii nasmi nasri Seyxina Asanusi mu mel ni ñu ngi woon ci première parti bi te ñu ñëw ci deuxième parti bi. من مخدمة دلون جيتل من يعلم خمال حباك الله ينا يالا جندي ولا حباك الله ينا يالا دفل رد أنجب وصحا كان نكنا إلهنا يالا ولا سيهن ديد دارا ما هو مو ولا سيهن ديد ديد وليس ديد من سيهن تي دارا ولا فيه تجاغن لن wala fi taxtihi du caagi ne lenn lu nekk ci ron yàlla wala alayhi déet lenn mus jalaalu feeñ comme ni yàlla feeñe mu ne fa laysa maxluuxan nekkut di kun bind waaye nekku tamit di ko ni melal wala maxsuuran nekku tamit lu takk wala lun gaw wala laysa maxmuulan nekkut lun yanu nekkul tamit luñ taaw wala maquuran nekkul tamit luñ not nekku loo xam ne des ko not nee na subhaana man tudd naa seetlu ka nga xam ne ax jasa lot na dar ko xam ko xalxan benn mbindéef nee na wa sukkuruhu sant ko nag xasa màgg na wa jàlla xasa tedd na wa jàllata màgg na mul ko nguuram nga mu ne is de di ko ñeel benn misaal wala samanun du caagane benn jamono wala loxo de di ko ñeel benn xeet wala makan du caagane benn place fa kulluma lépp loo xam ne yàquturu toq na biir baale cib xel abat ba faw fa bi xilaafin wuute na saaka loolee rabb naa sunu borom al ahad kenn kon daal Sëriñ Tuubaa nee na lépp lu xasa toq ci xelum nit rek nee loolu mënatut a xam yàlla kon loolu wuute na ak yàlla lu xasa dugg ci xelum nit rek maanaam lu xasa dugg ci xelum nit lépp loo xam ne xel moo koy xam rek loolu mënut a xam yàlla mu ne fan na jinaa yal nañu yàlla musal yaaqaale xas saytaane yow mi aji bind saytaane min kay di ak i pexeem wa salbil imaani ak dindi gi muy dindi ak gëm yàlla ci nit bi jaayi ahmadi ci darajay ahmad maal abraari ànd ak gaa yu baax yi sàlla yana yàlla doon xew wasala mu tam musal ko àll ci moom albaari yàlla mee ji baax waaxarina yàlla nañu yàlla saxal bi fexli ci jëf maanaa xam ne tar daawu gërëm na ko wakafu naa yàlla nañu fegal an kullima ci lépp loo xam ne taa baaxu bañ na ko moom yàlla mu ne baabul ab bunt la mu ne naqul dañuy wax nag fi insirafi naa ñu fas yéene soppeeku nag lil maqsadi jëm ci jubluwaay bi wa bi ismi rabbika nee na ci turu yàlla alkarim mee ci tedd nab tëdd ci la ñuy tàmbale mu ne ilam xamal bi ànd kullu ma bi ànd na naka lépp loo xam ne mi la xukkime ci atte jaraa daw na fi la xaqali xel in xasara tënk nañ ko fii salaasatin ci ñett nee na wax yow moom mooy lu war was ci xaalatul ak lu jomb woomaa ak lépp loo xam ne yoxora fa xam nañ ko bi jawaasin ci dagan inna loolu ci borom xam-xam yi fal waajibu lu war allazi moo leen xam ne abaa bañ na xaqlu salim xel mu mucc adamahu ak ñàkkam kakaw ni borom mbindee fi te mooy yàlla lu jomb maa mooy la nga xam ne wujudu amam ko moom tanewu moo terewu fi àqali man fi àqali ci xel kulli man képp koo xam ne fahim dégg na ka an yàkkuuna lu mel ni mu nekk fii baraayaa ci mbindeef yi su xitam di wara mu jiitu ka saxami bandi ni ki waxi lenn way dese yi siiwarum ci defew wal jaayisu li dagan allasi mooy la xam ne wujudu amam nga istawa yemoon na maan xidaam ak ñàkkam ga la daa man ci ñaa ne xat awaa làq nan ka mawti sax si nekk faatu jëmm xaajilan ci mbetteel waa xaajilan wala deegu yéex waa ka ibtidaa yi nekk tàmbali alwara mbindee fi ku nekkal xaaqila daaji xelu mun ne summa yajibu dana war ala kullu mukallim ci bépp mukallaf fii saraxi ci xam-xamu sarixa laa fil xaqli déet ci sukkandiku cim xel nag xilmul xam-xam boo xam ne yajib lu war la kon fi sëriñ bi daa wax ne bépp atte boo di gis rek wala mbir mu man di doon mi ngi tënku ci ñetti mbir bi ci njëkk lu war ak lu jomb ak lu dagan lu war nag moo loo xam ne ga ko am khel bañ lu mel ni amuk yàlla gi wajib la waye lu jomb nak moy lepp lo xamne xam nan ko lu mel ni lépp loo xam ne daal lu dagan la mooy loo xam ne amam ko xam nañ ko ni ki mbindeef yi ci boppam jiitu yàlla boo nee nit ñi ñoo jiitu yàlla loolu mustahil la lu jomb la lu dagan nag moo loo xam ne amam nga ak ñàkkam nga ñoo yam lu melni deegu mbettel ak deegu yéex deegu gaaw ak deegu yéex mom de la rek ñoyam mune fi haqi nek na ci akam subhanahu wa ta'ala sallam nga taala kawe na wa ma ala yu gis dana dagan istiala ci jombu allazi mooy la xamne wa ne wax ak saa ni ki noonu xeer faanoon xam misla sa kemli fi haqi xaq jami rusli ci mbolem ak yonenti yi xat ci lu wer xat ko fii alayhim yal na ñoom salaatu xew wa salaam ak mucc maa xadaa feeg ñu ngi gindi biim ci ñoom xibaadu jaami rabbi samaay ci bon asamaan si fa xaaka yal gindi baax dama lenn ci li nga xam ne jàll ma jàll màgg na waa sata tedd na min sifaatin ci ay melokaan waajibuñ yu war fii sa rajas ci rajas yi te mooy woyu wi mu ne wax ya moom ala tifaaxin ci dëppoo ahlul maarifati ñooñ maarifa takkoon day nekk fi adadin ci lim xisri na ñaar fukk si fa ci ay melokaan awoluwaa ba ci njëkk wujudun mooy am gi sumal xidam jiitu gi suma baqaawu des gim fi des daay mu dee ji sax laaxadam déet muy doon koy ñàkk mu ne xaqatul baqaay dëgg-dëgg sax salbul xadam mooy nga daq ak ñàkk yar xaq day yàlla li wujudin ci amam ga indal xakam ci borom xikma yi su ma muxaalafatu wuute gi mu ak mbindéef yi tax naa kawe na li kulli aada si ñeen lépp luñ sos faa yéen wattandikul al misaala misaal ma waa adduha limeef nan ko xul waxal sar bu jirmiyati dàqu jirim maa xusuus ya ànd ak jagle ga kasaaniki noonu alxardiya gaaral ga xiyaamu taxaw gim taxaw binaf si ci boppam abat ba faw min baadi maa lenn ci yi nga xam ne wajaba war na fi àq sama ci àq gi te mooy yàlla mu ne ay lim ci jul mooy lam yàkkun nekkut muftaxira daa ji aajowoo ilaa maxaalin jëm ci benn jëmm wala ilaa muxasasin déet muy aji jëm ci benn aji jëf xasa màgg na wa jàllata kawe mu ne wa fassira firee nan almaxalu bi saati ci jëmm almaxalu ñu ngi ko firee bi saati ci jëmm xaw naa fii doona makaanin ci lu dul palaas xinda man ci ñaa xam ne xat fatu naa xelu nañu kasaanik noonu muxassisun baatu muxassis xunaa fii xat fasro firi nan ko bi faaxi liñ ci aji jëf fa tabir xalamal maa la xam axtabiru xalam nan ko waminun ci loolu tamit wax daanitun kennam ki alim jul mooy laal ko déet di ko ñeel fi saatin ci jëmm saani ñaareel wala sarxa loo ñeel ko fii wax yi ci ay melokaanam subhaana tudd naa sellam ga wa fii lii ak ay jëfam rasaxanaa yàlla na wërsëgale asufra mu tuuf nu beneen li fàttali yi ci ngëneelal yàlla faxaas yi nag surtout juróom-benn la sifaatu ay melokaan woowu yi fegaleef ñu ismul ula tur wu mag wa nafsiyatun jëmmam ja xiiwatul salika loole wax ya mu amam ga summal xamsa topp juróom ata dikk na min bari maag min baadi ak ginnaaw ba salbiyatun mooy dàqonte fi ma loo xam ne sabat sax na kon nee na yàlla yii nii mooy wujud yàlla ku jiitu la ku fi saxla ku fi des la ku wuuteeg nit ñi la ci lépp yàlla mooy koo xam ne soxlaalul kenn dara te ñëpp dañ ko soxlaal mooy koo xam ne kenn mënu ko misaal ci benn côté lépp lu toq ci xel rek wuute na ak sunu borom. waaye tamit yàlla ku wéet ci la nee na yooyu kenn fekku ci yàlla mooy njëkk fi ñëpp di mujj ñëpp doon koo xam ne du faatu mukk doon ku wéet ci boppam ak ku soxlalul kenn dara te ñëpp soxlaal ko yii moom mooy yi nga xam ne kenn fekku ci yàlla kenn fekku ci yàlla kenn amul kenn koo xam ne fekk na yàlla ci yii ni amut mu ne li annaha ndaxte moom taslubu day dàq kullu amrin bépp mbir lay sa yelexi yëlut birahim yi ci kilifa gi te mooy yàlla fadri xamal su ma loo topp ñeel ko sapatu juróom-ñaar sifatu ay melo wajabat war na tuddaa ñu koy wooye almahaani sifatu mahani asbata saxal na ko kamalan ci mat ويوم هبارة هبارة لبغنا بدون لبس تلو بن لنت أن سمات جمال يغنى موجودة يو أملا ولا يو نكلا في نسنك جمم جمم يالا نينا وبمعالين وبمعالين تي جموجي سبر سخنا ما وجبر وارنا لسالك اللولة المعالى جموجي حكومة أباتي خصبت بسخ مهناو li mu ci jublu an naa ndaxte moom isaa xaamat bu saxawee bii moom tus bi day sax ak kaman ay atte loo ko fanta bi yeewul wooye moom ëllëti mooy nga xam ne tuddoxa dañ koy wooye la da sixaa ci aji ñeewante ja bil maanawiyati ñu di ko wooye sifatu maanawiya kamasa yati comme ni mu dikk su booti xudrati mooy saxu kattan bisaati lay ci jëm yàlla ci jàll màgg na afama déglul xaadirante aji gëm gi xaadirante aji gën gi am kattan faqes xiyaasal maa lam yaxul loo xam ne kenn waxula ko awlaa ba ci njëkk ak qudratu mooy kattan wa iraada ak namel wala xilmu xam-xam wala xayaat ak dund xibaada jaami wa samu dégg wala basar gi wala kalaam ak wax wa boo dégg naa ba max na weetun turaam def na ko sakku waaye moom nag kawnu lay nekku yàlla gi xaadiran di aji gën gi am kattan muridan di aji gën gi namel waale man dee ji gën gi xam xayan dee ji gën ki dund sameen dee ji gën ki dégg yaa murid yow mi aji namu yàlla wa kawnu ak nekk moom yàlla subhanahu wa sallam ga basiran dee ji gën gi gis o mu takkale man dee ji gën gi wax fasal laajal xabiran aji xootal ji wax dul xudrati nee na dayoob xudra nag la da si fa ci ñi xam ne ñoo xam yàlla neen al alimul xalaamata moo xam ne sifa melal nan ko albahar ci géej dana melo kàttanu yàlla ñu ko misaal ci géej nga xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem yum kinu dina jàppandal ijaadu waram ga maal edaam ànd ak ñàkk ga li kulli mumkinin ci bépp mbindeef minal anami ci mbindeef yàlla yi biyaa ci loolu alaa yu xin ci dëppoo iraadatu nammeel fasaaka fasaa lool nam yox wi làqut siwa ilahuna kurul yàlla xusaa jàppal neen abdul iraada li mub dayob nammeel fawaasun melokaan la boo xam ne yumkinu day jàppandal tax siisu mu mën a jëf mumkinun lépp lu mu namm te nam ko bëggee yaa fatiyun yow mi aji yow mi xelu nee na fii bari maa ci yenn yi nga xam ne yi jos daa dagan waja moom sitta juróom-benn la xat xaabara jublu na fi irtibaarin ca irtibaar ga ak sitta waja moom wujud mooy amam ga jaa isun dagal mustabdala ñu remplacé ko min xadamin mujawis ci ñàkkuk dagan ga faltaqilaa xelul kon fii dafa wax ne sifatul maanawiyaat yi daa mel yoo xam ne yàlla da ko am nit am ko lu dul nit tamit am ko mooy lu mel ni dégg ak gis ak wax ak kattan ak nameel ak dund loolu yàlla da ko am leneen am ko waaye nag bu dee xudra moom ak iraada ak xilm ak xayaat ak dégg ak gisa ak wax loolu yàlla am na ko nit am ko leneen lu dul nit sax am na ko waaye nag dafa ku ci nekk lañ ca am daa am fu mu tàmbalee am fu mu waaye yàlla nag lam ca yor moom amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem yàlla kattanam ak nameelam ak xam-xamam ak dundam ak déggam ak gisam ak waxam amul fu mu tàmbalee amul fu mu waaye nit moom li muy dégg daa am fu muy tàmbalee dem fu muy yem li muy gis daa am fu muy tàmbalee dem leneen lu dul nit tamit la muy gis day am fu muy tàmbalee day am fu muy yem la muy dégg tamit noonu la muy wax noonu la kàttan nga am tamit noonu mu ne waa nga sànni ki noonu miqdaaru ko kemam ba almaxsuusi gadi guñ jagleel min siwaayi ci mboolem min ci lu dut min saayiril ci mboolem miqdaaru kem yi sukkin woylef ko wa sifatul maxsuusi nee na melaw jagleel ka mustabdala dañ koo remplacé min saayiri sifaati ci mboolem melo yi aadama ba tey faqila xelul waa sama doon maxsuus ga jamono jagle ga aadama ba tey ba dalaa remplacé nañ ko min saayiri ci mboolem jamono yi fi ma dinaa xam ne jalaa feeñ na waa ka saani ki noonu ba al maxsuus ba di buñ jagleel min yi ci mboolem makkaan yi jameen mboole seen jam xelu wa jaatul maxsuus yi wallu jagle ga ay dem ba tey Badara remplacé nañ ko min sa idin jeetin ci mboolem wàllu yëpp indi man ci ñaa xam naxal toxaleef nañ ko nee na fii moom dafa wax ne daa wax ne kem bu nekk maanaam jagle gu nekk mën nañ ko misaal ci jagle moroomam waaye melokaan gu nekk mën nañ ko misaal ci melokaan moroomam jagle gu nekk tamit am na geneen jagle gun ko mën a misaal jamono ju nekk mën a ko ci jamonoy moroomam place bu ne mën nañ ko ci place moroomam wàll gu ne mën nañ ci wàllu moroomam waaye bu dee yàlla moom kenn mënu ko misaal ci lenn du du jagle gi du melokaan bi du jamono ji du palaas bi du wàll ki kon loolu mooy dëgg-dëggi tawhid gi na xam ne moom la Serigne Touba bëgg a leeral fii ngir nit ñi xam lan mooy dëgg-dëggi tawhid gi kon dañuy daal di foofu ci deuxième parti bi ñuy wax ne asiru maal abrari xiina asiru wasan nan yu daanu naa kasiru wa yaara usara li seetin wala wa inni dara bi as jël ina sil bari wala bari abidan wala su dafa jaaw ana ñi xam-xam ana ñi bëgg xam seen diine tàbbil ci ngëneel li di mawaaxibul xuddus doon téere bu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul taalif mawaaxibul la doon bi sa gindi ko ànd Serigne modlo kon bu leen ko kenn nettali fii ci ASG production le reflet du mouridisme le reflet du